saaga ginnaaw ba leen président Macky Sall dalalee fële ca pale ba mbër yi nag ñoom teel a ñoo jóg ci mbir mi tontu indi ay leeral mën a seetal seen deex. ñëpp xam nañ ñi reconversion des lutteurs dafa am dafa am manquement te président lancé. ci ndaw ñi ca jotaay ba ñu toog mu xamal nañu jox nañu benn quota boo xam ne tey xëy ndaw ñu. waxtaan ak moom wax ci ñun am na ay jafe-jafe logement sociaux. bi nga xam ne secteur yu bare bare bare bare dañuy am bénéfice ci maanaam logement bokkoon na suñu ay mébét ñu wax ko le président suñu jafe-jafe bokk na ci couverture maladie universelle maanaam tey problème mu santé ñu tey ahlu làmb dañu am jafe-jafe boobu trop ni ko ko waxee ba ñu jóge fa en toute sincérité gis nañ ci ay jéego yoo xam ne tey avancé la. mbër yu mag yi nag di nakarlu jëfinu jeunesse gi jamono ji di lu saaga yi ci réseaux sociaux yi ak yàq alalu mbooloo gi buñ sukkandikoo ci ñoom nag ñu ngi xamal ni politique bi mun nañ ko defee neneen nu dul nii. àdduna kuy woote lu jàmm rek daa fekk nga am jàmm. mais bu ñàkk jàmm ñëwee ku nekk xam valeuru jàmm. ba tax na am na luy Sénégal li nga xam ne mu ngi raam ci ñàkk bi la jëm te bu fa amee kër dafa gaaw a yàlla bu mu fa jëm nag. kenn ñaanu ko parce que ñun Sénégal la ñu dëkkee suñu famille fi la nekk suñu njaboot fi la ñu nekk tey bu jàmm amul woon toogaay bi du am. mbër yi nag profité ci bile occasion ngir remercier président Macky Sall ci acte yi nga xamante ni ni teg na ko ci biir secteur bu jom ci wàllu làmb bu sukkandikoo si ñoom nag nit ñi xamal ni boobu boobule secteur néewoon na doole lool ci biir sport bi fii ci Sénégal.